Pathé Mbodj euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant soxna si Moreau. Pathé Mbodj nga nekk journaliste analyste euh, politique déjà yow naka nga jàngate coalition Takku Wallu euh, jiital président Macky Sall ci bopp bi. lu tax boo du war a jiital booy dem làmb kay di bëre te fal mbër da yaakaar ni moo war a daan ak seet naka la mën a def ba mu mën a daan. bu bokkee ñoom yaakaar nañ ni bu ñu jëlee Macky Sall si seen chance ci lay nañ ko mun a jël te loolu du lu du du gàcce ndax France bii ñuy xool nii mois de juillet bii ñu jógee président bi fi nekkoon 2012 bi ñu faloon ak makisal Sall euh, muy euh, François Hollande ñëwlaat na nekk député ginnaaw moom Cap Vert bi mu jógee présidence bu mu toogee diir dellu si na nekk député député européen tey jii ñu ni Macky moo dellu si moo koy dañuy seet eh, eh, lu si liñ si mën a jàngat li si jàngat mooy li professeur bi waxoon récemment ne bu ñu toogee tey jii six mois après Macky Sall di dellu si xëy na Pastef deful lu mu war a def bu ñu seetloo deux mille vingt deux bi ñuy def élection législative te metti waat di ñëw te nga xam ne ni Pastef def nu woon dafay nekk ci kujje gi ba nga xam ne ni nguur gi du ko du ko ëppale dara wàdd boobu moo leen ko xañ mm-hmm. bi ñu toogee deux mille vingt deux Amadou baa ñëw nekk premier ministre Pastef ak coalition ñu dañuy def motion de censure motion de censure boobu maître Abdoulaye Wade ak PDS ñoo leen ko xañ kon dem dellu si am na njariñ ndax dafa mel ni euh, sénégalais yi lu weesu lañuy ñuy euh, réccu wala di yaakaar si lu egseegul lu weesu nag mooy Wade lu weesu mooy Macky ñëw nañu dugg nañu si langue bi Wade wane na ni mu ko defee woon deux mille vingt deux si élection yi am ni mu ko defee si motion de censure am xëy na ndox jaaree fi mu naan ndox jaar xëy na Macky Sall tamit dana war a a wax moom tamit mun na euh, nekk cohabitation ak nguur gi. Euh, Pathé est-ce que ki lay di président Sall am na chance ba léegi ci wetu sénégalais est-ce que bu ñëwee est-ce que dina def poids par rapport ak Ousmane Sonko ak Amadou Ba. dafa am ñaari jàngat yi ñuy war a def ba pare bi njëkk bi mooy Macky Sall si boppam 2012 bi ñu koy fal président kenn yaakaaru ko woon bi si topp mooy am na soppite bi am diggante 2021 ak 2023 ci mbirum Ousmane Sonko ak euh, sopp bi ko xale yi sopp topp bi ko xale yi topp boobu mën nañu yaakaar ni bu fekkee ni topp boobu mu ngi fi ba tey war nañu mën a Pastef war na si mën a génn waaye loolu nag nañ ci boole tamit li Pastef def si diggante bi nañ ci boole tamit tànn bi ñu tànn nañ ci boole tamit ñi nga xamee ni yaakaaroon ni ñoo ñoo ko yeyoo te teguñu leen ko te xëy na tamit ñi doole boo xamee ni mën nañu nasaxal seen euh, kuje bi. Mhm. tey jii euh, Pathé Mbodj ñu bari ñu ngi wax ni euh, président Macky Sall mënul ñëw si réew mi battre fi campagne parce que dafa am lu mu fi def ñenn ñi sax nee nañ bu yegsee nguur gi na ko jàpp tëj nu mu gën a gaawee loo xalaat si lool est-ce que lu mën a nekk la en tant président. am na am na lu am ci fan yi démb wala ba ki Casablanca. Mhm. je suis Maroc en Maroc mhm. diggante président ak benn soxna euh, lu ñu war a ñaawlu la ndax bu fekkee ni nit ñi am na ñu nekk ci nguur gi tey euh, li leen génne moo mënoon tax ba lépp lu aaju ci loolu ñu bàyyi ko ci jamono ji li leen génne li leen génne leneen ci dal leneen ci dal ak lu mënti am def nañu loi d'amnistie ñu nekkoon kaso génn nañu am na ñoo xam ne ni ñi si génn ñoo ñoo nekk si bi tey bu ñuy ndamoo loolu tey jii dañuy wax ni nañu dindi loi d'amnistie bi Macky sàll def muy dani am na benn ministre bu ñuy wax ni si mbirum euh, gox yi ñu te ñu tudd ko si nee na ñi ko mbur woo mënuñu ko woo ndax dafa lu yoon may bu nekkoon si nguur bu fa defee ay tolof tolof ni ñu ko war a woowee ak ni ko war a ni mu ko ni war a layoo muy ñaar. Mhm. ñetteel bi mooy Macky Sall ci boppam ak ñi fi nekk ci nguur gi tey ci boppam am nañu waxtaan bu ñu seq bu wóor ñëpp ba ñooñu génn ba nekk fi ñu nekk tey ñeenteel bi tam mooy président de la république. dafa nekkoon si li ñu waxoon bokk si yoon bu fekkee ni yoon bi ñu si yoon ba léegi jamono bi muy nekk si nguur gi mhm. am na ay jëf yu muy jëf yoo xam ne ni kenn waru ko si mën a topp waaw yooyu yëpp buñ ko si boolee nag ñu bëgg ne tey jii Macky Sall mënul ñëw bu ñu ñëwee dañ yoon daf koy topp ban yoon moo koy topp ndax yoon bi ñu baale la muy loi d'amnistie wala yoonu bu bees boo xam ne ni Eh, ñu nekk ci nguur gi fàtte seen kàddu yi ñu eh, weccoo woon ak Macky balaa ñu génn mu ñëw ñu jàpp ko waaye jàpp Macky Sall man dana ma jaaxal daal. Mm-hmm. Euh, fi ñu toll nii euh, coalition Takku Wallu attaqué candidature bu Sonko tête de liste noo gisee mbir moom aussi. waaw loolu loolu moom mbirum politique la. bu fekkee ne journaliste bi mun na koo takk ndax lu am la bu ñu fàtte tamit ni mbirum politique la ndax loolu ñu def ñoom waa Macky Sall ak kii Ablaye Wade parce que si boppam bëggoon na ko def Barthélémy Dias parce que bu fekkee jaar-jaar yi benn la ku mel ni Ousmane Sonko ak ku mel ni Barthélémy Dias waxuñu lu tax ñu dugg dañu nekkoon nañu ci kaso génn si kaso kon am na lu ñu mën a toppee ba tey bu lu tax waruñu waruñu mën a laaj kàddu nguur gi loolu yoon moo koy dox li am mooy si politique wax ni Ousmane Sonko warul bokk mun na nekk ci politique wax ni Barthélémy Dias munul bokk war na mun a nekk waaye bu ñu fàtte ni euh, lii tax Ousmane Sonko génn mois de mars ba nekk fi mu nekk tey mm-hmm. li tax ba Bassirou Diomaye Faye génn kaso ba nekk fi mu nekk tey war na a tax ñu ni waaw ah, am jaar jaar boo xam ne ni mën nañ ko fàttali te dina gën a feeñ ci campagne bi waaye dafa naan mbirum politique yooyu rek ndax loi d'amnistie bi mi ngi fi ba léegi te taxoogul. Mhm. Euh, ñu wax ci candidature Amadou Ba lan lay peser ci kanamu Ousmane Sonko ci kanamu euh, Macky ak aussi ci kanamu Barthélémy Diaz. waaw ci ka euh, li am mooy comme li ma la wax rek bu fekkee ni xam na lu muy tojee bopp jana moom war na si mën a génn loolu mooy lan ndax euh, bon tabb nañ ko xeex ko mu dem xare ji dellu si génn na si ndax mooy deuxième moo topp si jomaay tabb nañu ñeneen ñoo xam ne ni xëy na ñi ñu tabul mer nañu ba taxaw si taxawaay boo xam ne ni mun nañu dem feneen fu dul liñ ko yaakaare kon nag bu loolu boo ko boole ma xam yaakaar ni ku nekk daal war na si mën a génn daal euh, si li ñu njortu li ñu njortu daal mooy bu fekkee ni li ñu def si présidentielle bi ma nga foofu ba léegi Pastef dana si génn Amadou Ba mën si génn bu fekkee ni li ñu def deux mille vingt deux mhm. Abdoulaye Wade ñu dellu si après vingt ans ñëw euh, taxaw taxaw bi mu taxaw ci assemblée def fa li mu fa def ci Pastef wala ci coalition bi bëggoon daaneel euh, Amadou Ba bu fekkee ne loolu yëpp mi ngi fi ba tey mun nañu yaakaar ni eh, mbetteel mun na am fu nekk daal mun nañ ko séntu fu nekk. Mhm. Euh, crise daal di am ci parti yu bari ak ay coalition gannaaw ba ñu fësalee euh, ñi ñu investir ci liste euh, pour élection législative yi est-ce que loolu lu normal la waaw wala déet. non loolu daan am loolu xam nga mois d'octobre ndeysaan bii ñu weesu rek. Mhm. am na li ñu waxtaan maak Mouhamadou Boun Abdallah Dionne rahmatullah yàlla na ko yàlla yërëm. Mm-hmm. am ku ñëw ba ñu taxaw ba taxaw mu daal di beddeeku loolu dafay am gis nga ko Thiès Amadou Ba bi ngi doon léegi coalition ki ko waroon taxawal Thiès beddeeku na ndegam ku taxaw ni man maa yowee ànd ba ñu tabb la ba yóbbu la kii dañu waroon def sax si yoon bu la tabbee ba pare ba liste bi génn mënatoo si génn loolu moo doon yoon waaye bu fekkee ne tabb la te ki nga tabb am ñu toog ñu ñoo ko gën a yey ñooñu il faut ñu kii xàccu tuuti xoolal bi ñuy defar gouvernement bi mois de mois d'avril dafa xaw a yeex ndax ku nekk daf ni man Pastef kenn nga nu ma ko yey Pastef li ma ko def kenn defu ko kon bu fekkee ni te jii jël nañu nguur bu ñu waree dugg man mi may dugg loolu day am tànn nañu am na ñuy tànn nar nañu gis nga Abdoulaye Diouf saa euh, sa Yoff wax nañu tey jii ni génn na ñeneen ñu tamit euh, ci biir tànn bi kii nañu waaye defe naa tey jii bu ñu defaree liste ba pare kenn jógee fële si kii bi ni man de Amadou Ba moom moo taboon pour Thiès pour dem nañu ko war a bañ loolu mooy yoon defe naa noonu la mën a jéem fexe ba nit ñi eh, ñiy def politique am ngor ñi def politique am gis-gis ñi def politique mën a nekk eh, nit waaye dugg Ablaye eh, am Ba ba ñu tabb ba pare ba defal liste yi ba génn nga ne na naxee affaire xale la daal nguur gi war na ko mun a bañ yoon tamit war na ko mun a bañ. Mhm. dernière question moom mooy Pastef bi nga xam ne euh, Ousmane Sonko daal dafa éviter coalition yi ci élection législative yi lan moo waral Ousmane Sonko daw coalition yi ne ku bëgg a bokk na ñëw bootu ci turu Pastef. <laughs> <laughs> xam nga man bu ma nee doy sama bopp man yóbbu jubba ak sama jubba képp ku ñëw ni daf may jàppale. dama naan baal naa la amul ku bëgg a bootu ku bëgg bokk da bootu amul ku bëgg bokk bu ma man Pastef doy naa sama bopp bu grand parti ñëwee ni dama lay jàppale man la baal naa la ko dëj bi sama dëj la mun naa ko jooyal sama bopp mm-hmm. waaye man maa ngi Pastef man sama bopp doy naa sama bopp ah Moro jógee fële Pathé Mbodj jógee fële ñeneen jóge fële ni dama leen di jàppale ñun la bisimilah kon li ngay wax taxawul te fi nga jëm tamit xamoo ko. merci beaucoup Pathé Mbodj ci tontu bi nga tontu suñuy laaj ñu ngi lay remercier. bu baax ah, la euh, gërëm Moreau jërëjëf ci sa liggéey ak sa taxawaay. voilà may fàttali ni Pathé Mbodj taskatu xabaar nga nekk analyste politique jërëjëf.